Euh, képp koo xam ne yaa ngi bind ci internet bi defe naa président de la république c'est ah. le chef de l'État. état dit, mon, moom amul nit kuy xëy te doo ci internet bi malheureusement mon, euh, Abdou Karim Sall bëggul kuy bind ci internet bi moo tax suñu sœur Dior Sarr bi mu bindee euh, reprendre ben article daf ko bind Dior Sarr ñu convoqué ko ci article boobu mu reprendre Moussa Seck lan la koo topé. ne moom dafa bind ne unk bi dañu war a dagg boppam man yaakaar naa ne ministre bi du moom mooy unk te lii procédure la boo xam ne dañ fa jaaroon police ba pare léegi nag ki nga xam ne moom mooy Salma moo jaaxal ñëpp parce que Salma deful waxul waaye libaas gis nañ tey ci procédure bi ci biir tribunal bi que moom Abdou Karim Sall bind na benn lettre de désistiment lettre désistiment boo xam ne mooy ne toppatul libaas ñun jàpp nañ ne bu amee ku ñu war a convoqué fii ci mim réew C'est le ministre de l'environnement. environnement. su amee ku a convoquer présenter ko devant le procureur. c'est le ministre de l'environnement. parce que dafa fekk ay Gazelle yu nekk ci àll bi mu wax dégg nañ président conseil départemental mu jël leen ci période couvre-feu. jël leen ci guddi jël leen ci fu kenn yëgul. yóbbu leen ëlbatiku nag mën nañ ne mën nañ braconnage. parce que nak mom mi nga xamné mo moo waroon denc jur mu japp suñu ay gazelle oryx diko sax saax On kon tey jii jàpp nañ ne Abdou Karim Sall bu heure bi waru won tal. Convoquer jeune su il y a une autorité qui interpelle le président de la république Convoquer euh, convoqué na mais on lui dit ça suffit ça suffit parce que l'action action publique bi dina continuer waaye action politique sur le terrain on ko